xibaar bi tàmbale woon di wër ci réseaux sociaux yi mu soxal xale yu jigéen bi ñuy wax yi dëkkee ca Dagana amee jàngoro ji ñuy wax thrombose moom xale bu jigéen boobu nag gannaaw ay xibaar yoo xam ne doon na tasaaroo ci internet bi ñu naan Wally Seck daf ko jël en charge maanaam lu jëm ci wàllu ko faj gi te nga xam ne lu ëpp fukki million ak juróom moo ko war a faj te ñu war a koo faj ca biti réew xibaar ga ca topp moo di waa juróom bu góor weddi na loolee ba mu set moom kay la mu xamle ci wàllu xibaar moo di xam ne jot na ko woo waaye waxu ko turam ne ko bu ma xëyee dinaa jël en charge boobule xale bu jigéen di Fambaye waaye boobee la ko mujjee dégg mu nekk nag xibaar goo xam ne rek jamono ji ñoom kay lañ cey wax moo di euh, Fadel mi nga xam ne moom moo jëli woon googalek xibaar di xam le ne euh, bëri na jamono ji ñu nga xam ne pare woon nañ ngir jàppale xale bu jigéen boobu waaye mel na ni jamono ji dañ caa dellu ginnaaw ndax ba déggee ne Wally Seck moomee jël na ko ngir faj xale bu jigéen boobee di Fambaye mu nekk nag xibaar goo xam ne jamono ji des na ko toppandi bi